Mark saar fukk ak juróom benn bi bésu noflaay bi maryaama magdala maryaama yaayu saak ak salome jënd cuuraay ngir dem xeeñal neewu yéesu kon bis bu jëkk ci ayu bés gi ñu njëlu dem ca bàmmeel ba di laajante ku nuy bërëngal doj wiy ub bàmmeel bi doj woowu nag bu réy réy la woon noonu ñu xool gis ne doj wa deñ na ñu dugg ci bàmmeel bi gis ca ndeyjoor waxambaane wusal mbubb mu weex ñu daldi tiit waaye mu ni leen bu leen tiit yéen a ngi seet yeesum nasaret mi ñu daajoon ci bant bi nekkatu fi dekki na gis leen fi ñu ko tëraloon kon nag dem leen ne piyeer ak taalibe ya mi ngi leen di jiitu galile foofa ngeen koy gisee ni mu leen ko waxe woon noonu jigéen ñi génn dawe bàmmeel ba tiit bay lox te waxuñu kenn dara ndax seen tiit bi yeesu dekkee nag ci suba teel ca bés bu jëkk ca ayu bés ga mu jëkk feeñu maryaama mu dëkk magdala mi mu dàqe woon juróom ñaari rab maryaama nag dem nettali ko ñi àndoon ak yéesu fekk ñuy naqarlu di jooy bi ñu déggee ne yeesoo ngi dund te maryaama gis na ko gëmuñu ko ginnaaw loolu yeesu feeñu ñaar ci ñoom ci jeneen jëmm ñuy jaar ci yoon wi jëm àll ba ñu wuññi ko nag wax ko ña ca des waaye ba tey gëmuñu leen ñoom it ginnaaw ga it yeesu feeñu fukki taalibe yi ak benn bi ñuy lekk mu yedd leen ndax seen ngëmadi ak seen dëgër bopp ci li ñu bañ a gëm ñi ko gisoon bi mu dekkee mu ne leen demleen ci àddina sépp yëgal xabaar bu baax bi windeef yépp ku gëm te ñu soob ko ci ndox dina mucc ku gëmul des na ko daan ñi ma gëm dinañu ànd ak firnde yii ci sama tur dinañu dàq rab yi di wax làkk yu bees di jàpp jaan ak seeni loxo te bu ñu naanee lu ñu tooge du leen wàññi dara te jarak yu ñu teg loxo mu wér gannaaw bi borom bi yeesu waxee ak ñoom mu yëkkatiku dem asamaan toog ci ndeyjooru yàlla taalibe yi dem waare ji te loxo borom bi ànd ak ñoom di dëggal kàddu gi ak firnde yi ci ànd